Euh, salaamaaleykum sëñ bi Thioune ñu ngi lay ziar di la euh, delloo njukkal euh, di la ziar bu baax a baax si bésub gàmmu gi. maa ngi leen di nuyu te di leen ziar di nuyu képp ku may dégg di santaat Serigne Touba di ñaan ñu fekkee ko déwén te déwén dàqal nu ren fuuf barkeb Serigne Saliou maa ngi am mbégte lool di leen Euh, sëñ bi Thioune euh, màgg euh, gàmmu gi nag sa sëñ Cheikh Béthio moom moo ko daan def sëñ gannaaw ba mu amee ndigalu sëriñ saaliw ren nag nga ñëw def ko fii fi nga xamante ni moom la suñu Cheikh Béthio laay wax sax suñu seex Béthio fu mu ko doon defee ban yëg-yëg nga am tey. waaw moom day yëg-yëg bi ñu am mooy xam ni ndigal la loo xam ni ma nga rote woon ca sëriñ Saliou ci taarix maa ngi leen di fàttali ni gàmmo gi. sëriñ bi moo ko sosoon moom sëriñ Saliou moo joxoon ndigal Cheikh Béthio ngir mu sos gàmm fii ci Ndakaar hmm. dañoo dellusiwaat nag fii nga xam ni euh, fii la ko sëriñ bi sose woon ci fàttali rek euh, maa ngi euh, mi ngi fàttali keroog bi mu koy jox ndigal li moom sëriñ Saliou ci jëmmi boppam da ko boole woon ak juróom-ñaari nag ak suukar ak warga ni ko boo demee nanga sos si gàmmo ca Ndakaar ñaan nga fii lañ ko ñaane woon kon day mel ni taw féex la ci ñun ñu dellusiwaat fii nga xam ni moo doonoon ndigal li waaw ak cant gu rëy la jural ñu fas yéene ko màggal teg ko ci sunna waaw noonu daal la demee. gisee la hmm. hmm. hmm. wala dënku rek ci ndigal moo la may loolu ah wallaay dañ dimbali rek eh, ñun dey ay taalibe lañu sëriñ bi nag bu na digalee mooy defal boppam eh, dañoo am ndimbalu tënku ci ndigal rek tax sëriñ bi di ñu jëfloo loolu nag du du du du du ku ñu dimbali jàmbaar amul ku ñu dimbali rek am dañ noo dimbali sunu sang ba sëriñ Cheikh Mbacke yàlla na fi yàgg te wér maa ngi koy nuyu di ko màggal moom day moo ñu moo ñu moo ñu moo ñu tënk ci ndigal lool te loolu rek la ñu fas yéene doxe it waaw maa ngi maa ngi sant nag bu baax ndax euh, fii ñu dellu siwaat di Touba Njurul day barab boo xam ni barab bu bu bari signification ci ñun cantaakon ndax fii la Serigne Béthio nekkoon mag gàmmu gi fii la jote woon ndigal li fii la ko daan defee saa su ne kon nag dañu ci barkeelu rek eh, du lu bees eh, yàgg nañ ko fee def ay at ci ginnaaw mu jëntal gi lañ ko daan defee Madinatu Salaam waaye ndigal li fii la woon waaw li Sénégal euh, mm. ndaw ñu dugg ñi de li ma leen di dénk mooy maa ngi euh, tiis lu lool euh, xew-xew yooyu nga wax. te di jàll seeni i bokk maa ngi leen koy masawu di leen ñaan di ñaan suñu borom tàbbal leen ci àjjana yi gën a kawe eh, ndaw yi ndaw yi nag li ma leen di digal rek mooy ñu delluwaat seen bopp ci njàngalam sëriñ Touba doon ay taalibe te déglu ndigal eh, suñu borom nag day dogal mooy dogal lu ko soog waaye day loolu day eh, lu métti la wax dëgg yàlla waaye nag ñaan sunu borom daal di ko fi yemale rek te te te sëriñ bi defal leen tawféex ba ba lu mel noonu dootu leen dal waaw waaw dañ ci ñaan ndeysaan jërëjëf